mbokki internet te dal leen ak jàmm seen chaîne youtube di Buzz Actu 221 di chaîne bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor abonné leen te bës cloche de notification bi ngir nag dara bañ leen raw suñu ay xibaar Buzz Actu 221 PUR a fait sortir un communiqué après la conférence de presse du maire de Dakar Barthélémy Dias du jeudi 10 août 2023 dans ce communiqué on peut noter les propos suivants après la sortie de notre collègue et la ville août 2023, nous, élus militants du PUR et membres du Conseil de la ville de Dakar, condamnons fermement ces propos déplacés et irrespectueux à l'endroit de notre camarade et secrétaire général national du PUR, Cheikh Ahmed Tidjan Youm, par un discours insidieux et volontaire de mission de ses prérogatives. Selon ce communiqué, personne au Sénégal n'ignore que le secrétaire général national du PUR représente dignement le président du parti Serigne Mohamed Khartoum au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi le président du PUR a renouvelé à plusieurs reprises et publiquement sa confiance totale à Cheikh Ahmed Tidiane Youm dans ce sillage nos conseillers à la mairie de Dakar et les du PUR lui renouvelons également notre confiance et nos encouragements dans ce communiqué la partie de l'unité et du rassemblement ajoute nous demandons à notre collègue maire de Dakar de faire preuve de respecter et de considération à l'endroit du PUR et de l'ensemble de ses militants. Nous renouvelons aussi notre confiance totale au président du parti Serigne Moustapha Sy et nous engageons à travailler mais dans la mai avec le secrétaire général du PUR Cheikh Ahmed Tidiane Youm pour le bien-être, la liberté et le droit à la vie de tout le peuple sénégalais. Buzz Actu 221 gannaaw sortie bi nga xamante ni kii di maire bu Dakar defoon ko ci jeudi di août 2023 bi passé doon ak ay kàddu nag daal di koy jëmale si bile coalition bu yeewi askan wi ñii di waa piir nag ñu daal di génne ab communiqué ñu daal di àddu ci kaddu yi nga xamante ni kii di maire bu dakaar daal dina koy génne ci naka noonu nag ñu ngay ñaawlu waaye tamit di condamné kàddu yi nga xamante ni ak kii di maire bu Dakar daal na ko yëkkati jëmale ko seen camarade moomee di Cheikh Tidiane Youm waaye tamit a nekk secrétaire général national mel ni kii di Barthélémy Dias dafay tuutal cër bi nga xamante ni daan nañ koy jox seen naataango mile ci bile coalition Yewwi Askan Wi gannaaw nag bi ñu xamle ni kii di Cheikh Tidiane Youm mi ngay représenté dignement kii di Serigne Moustapha si Al Maktoum nekk président bu bu PUR ca conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi li koy firndeel nag mooy kii di Serigne Moustapha Sy saa su ne ma ngay sant waaye tamit di gërëm ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Youm waaye tamit benn sikki sàkk ba tax nag ñoom ñi lee ñoo ngay encouragé ki nga xamante ni mooy Cheikh yu Youm te nag di artu maire bu Dakar ngir nag mu daal di jox cër ba mu daal di mot sëkk seen secrétaire général national di Cheikh Tidiane Youm ba tax nag ñoom ñi lee di waa Pire ak seen militant ñoom ñi lee nag jamono ji ñoo ngay daal di yësalaat seen engagement ak seen ngëm-ngëm daal di koy jëmale nag seen président parti boobee di Serigne Moustapha Sy si Maktoum waaye tamit ñu fas yéene ànd ak Cheikh Tidiane yu ñu booloo doon benn ngir nag ñu mën a wéyal seeni a liggéey di ab bataaxal boo xamante ni ñi di wàppir ñoo ko daal di xaatima daal di koy jëmale nag si ki nga xamante ni mooy maire bu Dakar di Barthélémy Dias